parlementaire Fass Ridwaan dafa ñàkk ndox ëpp na ñetti at ëpp na ñetti at mag sax mënul toog 5 heures de temps 8 heures ba 13 amul ndox utiliser wul ndox école bi mu ngi am lu ëpp juróomi téeméeri élève lu ëpp juróomi téeméeri élèves mën nga leen denc ci benn bërëb duñ dem toilette duñ naan loolu c'est pas possible te buñ demee xalaatal ñu demee ci toilette bu amul ndox lan moo fa mën a juddu ay maladi yuy wallante ñu wàll équipe pédagogique bi ñu wàllante seen biir quartier bi yëpp am feebar feebar buy wàllante ainsi de suite mu law dëkk bi yëpp senegal yëpp te loolu li ñuy seetaan la dañ ñoo seetaan carrément dañ ñoo seetaan iyaa yegg na ko toog nañ ak moom wax ko ko plus de sax jox nañ daaw dégg toog nañ ak moom yeef toog nañ ak moom kaw Kaolack defu ci daram toog nañ ak moom réglé wu ko ñu ngi ñuy seetaan ñu ngi ñuy seetaan école bi nag léegi day am ndox walla ñu tej ko rap suñu xale yi dootuñ dugg ci école boo xam ne amul ndox suñu xale yi dootuñ dugg ci école bu amul ndox c'est pas élèves yi boo leen normalement da nga leen a war a tëj mais mënoo leen tëj ci biir école bi lu ëpp juróomi waxtu léegi buñ mare ñu génn buñ dajeeg dof mu toroxal leen buñ dagee dajeeg bandi mu violé violé wala buñ dajee xaj buy matte loolu yëpp du sécurité école normalement dafa war a am ndox bu amul ndox ñu tëj ko loolu mooy suñ ñun parents d'élèves daal loolu mooy suñ gis-gis maa ngi woo président de la république son excellence Bassirou Diomaye Faye lii problème la jub jubal jubanti nañ ñëw jubanti école bi ñu am ndox Ousmane Sonko mu sell bi nañ sellal yorinu ndox bi fii nañ fexe ndox mi dellu si ñu sellal suñu école suñu xale yi mën a nekk ci milieu boo xam ne dafa sell loolu ñooñu la ñu interpellé. école bi mu ngi fii Fass Ridwan ci commune nu Kaolack la nekkul ci àll ci commune Kaolack la nekk Fass Ridwan ci commune nu Kaolack te nekkul ci pegg yi ah fi bu amoon napp boo xam ne c'est pas salé ñu wut ñu gas seen école àll yi sax dañuy am robine wala ñu am teen mais école boo xam ne amul robinet amul teen léegi nuñ naan lañ ciy fonctionné xel mën na ko xalaat te wallaahi dañ ñoo seetaan ñoom ñëpp dañ ñoo seetaan